jërëjëfati mbokk yi seetaan déglu cabinet bio rahma di kaat li ngay séen moom mooy bio énergie bio énergie dalay may cawarte ci lépp looy def rax dolli su dee da ngay sëy daf lay may nga mën a sëy sëy gu yàgg su dee jigéen ji nga xam ne day sëy te du yëg su ko dee jëfandikoo day am bànneex ci wàllu sëy rax ci dolli su dee jigéen joo xam ne saa buy sëy kanamam day wow su ko dee jëfandikoo kanam gi day tooy waaye yow mi seetaan tey déglu baax na ñu wax la li ko tënk muy gingembre ñamako girofle cresson nigel curcuma spiruline moo tënk li nga xam ne moom ngay seetaan nii li nga xam ne moo di bio énergie na nga koy jëlee nag lu leer la su boobaa da ngay bàyyi ba ngoon nga daal di jël benn kaas ataaya nga daal di ci def ndox daal di jël kuddu gu ndaw yëngal nga daal di ko naan à soo ko dee naan comme di tey le soir moo lay dimbali nga am énergie si li ngay def kon yow mi seetaan tey déglu te dañu bàyyi xel te am jafe-jafe lu jëm saay booy sëy muy gaaw a àgg wala saay booy sëy sa kanam di waw bu dee jigéen wala doo yëg bànneex bio bioénergie baa ngi noonu muy produit bu naturel boo xam ni lañ ko defaree wax naa la ko nee naa la gingembre ñamako girofle cresson nigel curcuma ak spiruline nee naa lii lañ ko defaree te lii nag fu mu nekk fu ne daf lay may cawarte yi si sa wàllu nekkin kon yow mi seetaan tey déglu yëf yaa ngook njëg gi toll si mille francs sirop bi bouteille bi doon 125 millilitres nga mën ko am ci cabinet bio Orahma téléphone baa ngook jël